gënanti loolu nekkul lu bees euh, ni ñu ko waxee tey nag ñu dellusiwaat ci waxtaan wi ngir gën ko yaatal ndax keroog euh, gàttoon na ba lépp xaju ci woon monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la gërëm ci disponibilité bi am mbégte dalalaat la ci réew mi FM euh, surtout ci Demb ak tey ñu ngi leen di fay di bëgg ci waxtaan ak waa Rewmi FM Euh, di nuyuwaale itam seen auditeur ak auditrice yëpp ak fu ñu mën a nekk. monsieur le ministre ni ma ko waxee secte religieuse la ñuy waxtaanee euh, loolu nag euh, nekk tey xew xew jamono ak soxna si ñu tuddee Zeyda Zaman waaye bala ñuy ñëw ci moom dañuy ñëw ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa nga wax ñu ni lu ni mel feeñoon naf ci. waaw xam nga mbiru secte yi <coughs> c'est une longue histoire. Euh, man bi may jàng fii université booy def islamologie am na benn matière boo xam ne al milal xal lañ koy tuddee maanaam affaire secte yi rek ngay jàng mais boo toppee dans l'histoire lu yàgg la te bari lii fii feeñ yëpp di jaaxal nit ñi luy feeñ lu yàgg feeñ la feeñoon feneen euh, ci jamono yonent bi déjà sallallahu alayhi wa bari na ñu gënoon di woote ak yonent waaye ki ci gën a fés mooy lima moom dafa ñëw bés na yonent bi man sax xam naa ne yonent nga waaye may itam nag yonent laa euh, boobu bañee ma yàq sa affaire dañuy déggoo ma ak yow euh, ñi ngay wootee nii may wootee nii am yuñ ciy déggoo maanaam xaw a nañ signé un pacte de non agression bu kenn attaqué sa morom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dàq ko ne ko yow ab fenkat nga man ab yonent laa mais yow ab fenkat nga daal di koy tudde musaylimatul kaddaab musaylima la menteur alors siiwal ko ba kooka looloo yàq woote gam doon woote mais daf daan wax ne moom musaylima ar rasul wala annabi ne ab yonent la gannaaw loolu ci eh, lu passé tuuti ci jamono yonent bi ñu bari woote nañ lu mel noonu euh, woote ak yonent euh, dox ak jamono tuuti waaye comme sama borom moom comme mooy yónni yónent yi euh, ñu daf leen a faat ñu fàtte leen seen histoire ñu fàtte ko tudd naa fii keroog ne Sénégal gi euh, ci jamono yu yàggul rek euh, soxna su mel ni njaay moo di Girandou feeñoon na fi vers les années 90 man mii dem naa ba këram centenaire jàkkaarloo ak moom waxtaan ak moom moom da daan woote moom it ne dañ ko wax yu dañ ko inspiré man ci loolu laa discuter ak moom mais bi ñuy discuter danaan tari alquran tàmbalee ci suufu Fatiha jëm kaw ne moom noonu lañ ko koy euh, wax yoo noonu lañ ko ko saay bon bref bi ñu waxtaanee comprendre naa ne kii xamul diine euh, ma wax ko itam ne ko xamoo diine wan ko ne ko diine islaam yonent bi mujj mooy Muhammad sallallahu alayhi gannaaw moom jaratula sonal sopp xanaa booy woote feneen mais islaam moom mënatuñoo nangu beneen yonent bu dul Muhammad sallallahu alayhi ndax mooy xaatamul ambiya war rusul c'est le sceau des prophètes donc c'est une longue histoire boo xam ne yàgg na am ci jamono mais boo ko seetloo ay épiphénomène lay doon yoo xam ne dafay fay bu fee xëy na quelque temps nga koy may eh, ku mel ni njaay moo di grandu xale yi xam naa génération yu mujj yi sax xamuñu ko faf mais moom nan la ko jëf yi dikkee euh, ak euh, ci lan la nekkoon. moom li ma xam nekkoon na journaliste bu ràññeeku ci RTS man fa ko xame woon daan ko déglu mu amoon diction bu bu bu neex a dégg sax alors ci journaliste RTS yi gënoon a fël la bokk ginnaaw gi nag ma dégg ne dafa feebar ca feebar ba la ko mbir mi feeñoo xam nga dañuy wax ne suñ société africain yi duñu xàmmee ku feebar ba tàggoog xelam ak ki yore xelam. ñun daanaka boo feebaree ba tàggoog sa xel sax dañu koy teg mbiru jinne teg ko ay mbiru kii yoo xam ne dañuy yaakaar ne am na yoo àndal yu bees ba loo wax bu doon caaxaan sax nit ñi xaw ko gëm loolu suñu culture moo xaw a tëdde noonu moom donc ci loolu la ko mbir bi feeña woon mais dafa meloon sax daf ko xawoon a wal ba mu ba mu xaw a am yaram man bañ a jàkkaarloo moom gënoon na am yaram ci jamono yu njëkk donc foofu la ko jaaree mu ne inspiration la mais moom je crois bi mu demee confronté wu ak la réalité ci fin bi mujj na dem ba mettre un peu d'eau dans son thé alors ba nga xam ne na mu ko daan joxe importance ca tàmbali ba euh, mujj na ko wàññi. Euh, amoon nay nit ñu ko toppoon man keroog ba ma koy seeti këram ñu ngi koy garde ma nga dëkkoon ca premier étage ba mais ci suuf ngay tàmbali di gis ay gardien ay góor yu mag yu taxaw di garde ñoom ñoo lay fuyee kii la ba nga dugg yéeg boo duggee itam am nay chambellan yu nekk ci biir taxawu ko boo génnee ñoom ñoo lay euh, gunge mais nag ñu pacifiste lañ quand même loolu je le reconnais parce man booba j'étais plus jeune plus fougueux euh, jàpp naa ne sax la ma ko doon ñu bari dañ ma doon wax yow li ngay li nga def kenn du ko def dama dem di di ko war ne ko jàngoo dara bu taree ma ne ko du noonu bu kii ma ne ko yow est-ce que da nga ma sa jàng alxuraan di ko leeral ne ko wax yu yonent rek moo koy jot maanaam inspiration divine ainsi de suite ba nga xam ne discussion yi mujj na sax jaaxle amatul lu muy wax elle n'a plus d'argument parce que man booba jàng naa kii mën a bon amul benn argument mu ne ma sama mag bi mu ngi fa di seede mu ne ma man d'ailleurs ñëw pour werante euh, man dama woote kuy gëm na nga gëm ku ma gëmul booy boo nga dem seur man nekkuma fi pour werante vraiment nangam nangam daal di génne ay mi ngi yore woon euh, ay coco yu mu tranché tranche coco ne ma bu fekkee ne am nga ay doom euh, je n'étais même pas encore marié à l'époque mm. mu ne bu fekkee am nga ay doom euh, boo leen takkalee euh, affaire yi du ñu mës a def accident ma ne ko man d'abord gëmuma yooyu ngay wax du ma ko utiliser gëmuma ko boo sama mag par pour sauver xëy na la face mu ne ko man jox ma kii amagul doom moo tax waaye man jox ma mu jox ko kiw kooku yooyu bref ñu tàggatoo gaay bi gunge ba ci suuf buñ ma gunge ba ci suuf ñi doon garde ci suuf ma taxaw ak jàkkaarloo ak ñoom may leen ndaw si toog naa ak moom lu yàgg di waxtaan ak moom dafa réer dama leen ko ak carrément yéen nag mag yi jëmm ngeen dem leen jaamu ji yàlla bu fekkee yàlla ngeen di jaamu kii ngeen xam ne ku réer la bref mais jàpp naa ne ñiy woote ak yonent yu demee ni moom yëpp soit dañu réer wala seytaane moo leen dugg wala ñu nekk ay escroc mais yooyu yëpp am na ci donc il faut nga jéem a identifier ban catégorie la kiy woote bokk. lii lay taal waxtaan wi mooy soxna si génn euh, jamono yépp di woote moom itam yonanti particularité bi mooy nee na moom yonanti beeku yónnee c'est la messagère du messager euh, muy woote itam euh, lu demee noonu yow ban njàngat nga def ci phénomène Zeyda Zaman. waaw dégg naa sama xarit sama mbokk Muxtaar Sarr mu ne sayda sax jaaduwul ñu di ko wooye ndax sayda turuwut jigéen ju tedd lañ koy wooyee te moom li muy wooyee te nuruwul loolu xëy na moom sañ ne ko man sañu ko ndax xam nga soxna si ki njëkkoon a nekk boroom këram di maître ma soxna kan di ku baax man féete ma sax ci mag ndax moom sama mag jii ñu nekk këram tey ñoo nekkandoo woon di liggéey xam naa leen booba eh, ñoom ñaar kenn takk gu ci soxna donc xam naa ko bu yàgg yàgg miin naa ko kooku moo rekkoon boroom këram ba yàlla dénk na leen jaboot alors donc euh, presque am na yoo xam ne mënuma ko wax ci moom mënuma ci sori mais li ma jàpp mooy li ma wax ci ñii rek nag quand loolu mënuma ko bañ a wax soit dafa feebar xëy na feebaru xel wala mbiru seytaan dugg ko gëmuma ne affaire escroquerie la bien que nag thèse boobu ñu koy développé. Mm-hmm. parce que am na ci recherche yi yi yi ma jot a def ne dafay liggéey ak benn ONG. Mm-hmm. et dafa yore association bu tudd Taj Mahal Taj Mahal moom ci turu Inde la ci vraiment affaire Inde yi la gënoon a jege. alors ONG yi nag y di du tout man mi di wax ak yow liggéey naa ci presque une quinzaine d'années. des ONG internationales je sais bien ce que je dis euh, am na ci ñoo xam ne dégg naa sax thèse bu ne ONG bi muy jëflanteel ñoom dañuy toppatoo mbiru homosexualité ak genre euh, nee nañ demoon na fi Côte d'Ivoire ci cadre benn conférence boo xam ne c'est pour la lutte contre les violences yi jëm ci genre violence yi jëm ci genre quelquefois dañ koy mbëbëstal waaye leen ci jublu mooy góor jigéen yi ñuy yuuxoog góor jigéen yi ñuy dóor ci koñ yeeg yi ñuy exclure ak di leen marginaliser euh, soit góor jigéen ou lesbienne. pour ñu mën a am seen liberté daal. pour ñu mën a am seen liberté euh, considérer leen comme ay nit ñu normal. Mm-hmm. xam loolu boo ko bëggee ci suñu société yi day jafe. Mm-hmm. alors il paraît bi muy jëflanteel ci cadre boobu lay liggéey moom itam semble-t-il euh, loolu lañ ko defloo mission boobu lañ ko defloo. xam naa nag jaare ko ci jigéen jaare ko ci mu woote li muy woote mais li muy woote moom ci l'islam ça n'a aucune signification ndax messager amul messager amul sax messager bay am messagère euh, sëñ Touba tudd na boppam xadimul rasul wala xaadimul rasul du moo ko njëkk a tudd anas tuddoon na ko keneen ak keneen tudd na ko xanaa ku toll ni sëñ Touba ak xam-xamam ak gëddaam ndekam moom la muy woote du lu dul nekk mbindaanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeexal na wax kon keneen ku dikk ne man message yonent bi laa te yow xaajoo egg foofa nit ñi duñ la mën a gëm dañuy xam ne it li ngay wax ñàkk a xam soit ñàkk xam nga ko teg wala ay caaxaan messager wala messagère du messager amul fenn fu ñu ko gis dans la littérature islamique yonent bi salaa salaam moom ci boppam message la bu dee nag danga ko war a jottali loolu mission la pour bépp jullit ndax dama koy faral di wax yonent bi salaa ci xajatul wida soo pèlerinage daje dafa def discours bu dow yaram ca la waxe yu baree bari yoo xam ne saaba yi nee nañ keroog la ñu xamoon ne dafay tàggoo bokk na ca la wax ne alahal ballaxtu ba mu waxee ba pare discours ba dafa traité toutes les questions yoo xam ne mooy régir diggante nit ak moroomam diggante nit ak boroomam mu ne leen alahal ballaxtu ai-je bien transmis le message ndax jottali naa yonent gin ma yónni woon ñu ne ko ankay ah jottali nga ko ci anam yi mu gën a rafete mu wax ko ñetti yoon ñu tontu ko ñetti yoon mu ne kon nag ku fi teew tey wala ku dégg message bi na ko jottali ki ko déggul de ce point de vue là nee naa jullit bu nekk sañ na ne yonent bi moo ma yónni ma jottalil ko waaye ci anam boobu rek nag waaye nag bul wut kasket wala toge mbubb boo xam ne da nga koy bëgg a sol ne man messager la particulier wala messagère particulier loolu amul en tout cas sëñ Touba mi ñu xam moom ci lim am yépp sunu borom may ko ko muy may gu rëy mi ngi ko amee ci wootewul ne mooy messager du messager waaye daf ne mooy xaadimul rasul waaw serviteur du messager kon nag keneen kuy woote leneen du ñu def lu dul jàpp ne da ngaa réer wala seytaane ànd ak yow wala boog ngay def escroquerie. jaare ko ci diini. Mhm. alors bu fekkente ni ONG yooyu ndax photo yi ngay li ngay wax nii gis nañu photo yi ci internet mu ngi taxaw ak euh, ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci ONG bi et tout donc euh, lëkkaloo boobu moom lu lu wér la léegi bu fekkente ni loolu mooy mission ci sa xalaat lan moo waral ñu jaarale ko ci islam te awale wuñ ko xëy na ci affaire droits humains ak yu ni mel. waaw parce que euh, ñoom dañuy wax ne résistance bi gën mag. ci diine la nekk notamment l'islam xam nga booy tudd mbiru góor jigéen euh, mën nga ne kenn résisté wu fi ku dul waa diine waa diine waa l'islam nekk ci kanam ndax l'islam dafa traité la question de manière claire tranché et nette euh, yàlla ci alquran yónni na ab yonent bu ñuy wax luut alayhi salaam uniquement pour mu xeex ak ngóor jigéen ci kaw suuf kon diine ju noonu position am taxawaayam ci mbiru góor jigéen taxawaay bu leer la moo tax xëy na ku ko jaare ci biir lislaam woote ba ñu nangul la benn cër ci lislaam bu boobaa boo wootee ne hey góor jigéen yii kat euh, yàlla nee na wala parce que kii woote caaxaan lu ko nekk wax nee na ñu bàyyi leen nee nañ am nañ liberté bu boobaa xëy na loolu mën naa jàll dama yaakaar ne c'est une manière détournée euh, bu nu jéem a jaare pour mën a wutal liberté LGBT yooyu nga xam ne gis nañ ay premier ministre ak i président yuy jóg di leen wooteel kon bu ko ONG di dox di wut ay nit ñu mel ni moom aussi du ñu bett duñu ñu jaarale ko ci jigéen aussi jaarale ko ci jigéen très bien élément bu sensible mais élément aussi boo xam ne dañu koy déglu ci yu baree baree bari ñi xeex ay violence ak ay mbiru liberté gi yépp dañuy préférer jaarale ko ci jigéen ndax role bi nga xam ne daf ko am ci biir société bi. mu gis na itam jigéen ñi euh, fu mel ni France par exemple ñu ngi fay wax imaam jigéen euh, tàmbali na sax di doxal ba am xëy na ñoo xam ne rek dañ ci ginnaawam avènement boobu yow noo ko gisee tey ci jamono jigéen di am taxawaay boo xam ne euh, yegg na ci imaam wala ci yonanti bi yonanti comme li ñu am fi waaw imaam jigéen ak góor jigéen imaam yooyu yëpp gis nañ ko <laughs> ñoom dafa nañ ñaar yëpp waaw yooyu yëpp mi ngi dugg ci xeetu xeex diine diine nag du ñu bett parce que yàlla sunu borom ba mu ko wàccee la waxoon muhammad sallallahu alayhi wa ne ko sa diine ji du ñu des wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yarudduukum an diinikum in istataaw du ñu masa dañ di leen xeex ngir génne leen ci diine ji suñu ko li feeg ñi ngi koy man donc tout le problème mooy c'est un défi bu ñu lancé jullit yi mais du masa ñàkk jamono bu nekk wax naa ko léegi day am phénomène yu mel nii yuy feeñ mais jullit yi ñoo war di am position yu leer ci France googu ngay tudd boo fa demee effectivement fexe nañ léegi ba dugal jigéen ñi ci combat boobu def leen imam pour wane ne li lislam wax ne jigéen mënut a nekk imaamu ay góor loolu teguñu ko fenn parce que ñoom liberté ak égalité de genre de genre la ñu gëm dañu gëm ne euh, góor ak jigéen du ay mbir yoo xam ne war na tax ñu ne kii mën na lii kii mënul lale wala góor jigéen ak góor bu dul góor jigéen jàppuñu ne ñoom war na taxale ay nit donc ñoom diggante boobu boobu dañu leen wooteel une liberté totale euh, mais seen société gis nga li ñuy jànkoonteeg ci viol ci ay mbir yu dooy waar yoo xam ne ci niveau ba gën a kawe dafay xewe alors diine lan la waajal ci lu mel ni li xew tey muy genre secte religieuse yooyu. waaw diine sax day xam naa lim ci waajal lépp musuñu ko mu ne sutu ko appliquer parce que diine ku murtad ku nekkoon ci diine lislaam bu génnee ca diine ja walla mu wax lu ko ca génne walla mu jëf lu ko ca génne bu diine doon dox tey dañ ko doon woo tuubloo ko ñetti yoon waaw sëñ Tuubaa daf ne yustata bu jiimal addi des koy tuubloo ñetti yoon bu fekkee ne tuub na ñu bàyyi ko bu lànkee tuub ñu dagg baat bi loolu la lislaam wax ñu rey ko waaye loolu charia moo koy def charia nag comme li xalif bu baax bi sëñ Muntaxa waxoon ca mbirum boroom daara yi euh, walla mbirum daaw si la ko waxe woon charia léegi doxaluñu ko moo tax xëy na lu neex waay def mais bu doon diine la ñuy tey ndaw si des koy woo ne ko lii nga nekk lu la ci soob jéggalul ci sa borom ndax sa borom nga tooñ euh, bu de bu ko defee bu tuubee jéggalu ñu bàyyi ko mu delluwaat nekk jullit ba mu nekkoon ndax doomi jullit la ci jullit yi la nekkoon bu bu ko bañee def nag ñu jaarale ko fi ñu jaarale yoon mais loolu atteb charia la comme ni ma ko waxee léegi nag dañu nekk ci ay société laïque yoo xam ne ñëpp a ko bokk ku ne presque nga am liberté def lu la neex loolu moo tax yi di am mais du tare jullit yi am fayda bu ñu mun a ab bu ñu mënul a appliquer à cent pour cent seen charia it ñu am fayda yi kuy wooteelu bokkul ci seen diine ñu téye ci sa loxo ne la arrêté li ngay def boo bëggee nekk ci leneen demal ci leneen te bàyyi sunu diine waaye sunu diine quand même du ñu nangu ku ko fooye moo tax taxawaay boobu taxawaay bu war a la doon te xam naa ne kilifay diine yi du ñakk ñu jóg ci loolu dafa ñu indi ci organisation wu diine bi tey islaam xëy na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam organisé woon na ba amoon na bopp. amoon na euh, ñoo xam ne xëy na bu ñu gisee naka sudul noona ñoom ñoo cay wax ñoom ñoo cay dox waaye tey euh, loolu dafa mel ni euh, tumuranke na fi moo tax lijjanti yu ni mel ndax dina yomb. dëgg la li nga wax fukki dëgg la même fii sax damay faral di wax ne problème yi ñuy gis lépp ci mu aju ci lislaam ñàkk structuré jullit yi moo ko waral bu ma ne ñàkk a structuré nag du tekkiwul ne jullit yi ñii dugg nañ ci ñi ngi ci yoonu murit ñii ngi ci yoonu tijaan ñii ñi ngi ci yoonu laayeen ñii ñi ngi ci xadriya ñii nekk ay association moo xam ay association salafiste ou autre waaye loolu doyul communauté bi mboole seen comme ni nga ko waxee dañu war a am kilifteef benn structure xam nga ba fi De di ñëw 1958 pour le référendum mag ñu baax ñi dañoo daje woon euh, nee nañ sax sëñ fàllu moo woote woon daje ba ñu fekki ko Touba mag ñëpp nag xalif yëpp demoon nañ yi fi nekkoon yëpp ci jamono yooyu ku nekk demoon nga fekki ko ñu demoon sax ba tëral benn noyau al majlisul ala li shu'unil islamiyya benn conseil supérieur euh, de l'islam mais pexey politiciens yi fexe ba nasaxal ko bi Senghor di génne code de la famille bi euh, code de la famille bi période bu gudd la ko Senghor liggéey mën naa ne boori année 68 sax lañ ci commencé réfléchir ba 72 dañ ko wate dafay yënne mag ñi benn mouture projet bi en français sëñ fàllu ba tey yàlla yàlla yokk leeram ba mu ko jotee mu woote daje Touba ñu fekk si ko mu ne leen ah lii kat dafee ñëw ku nekk ne jot nga ko ñu ne luñ ciy def ñu ne nañ njëkk bind ki ñu ko yónnee muy Senghor ne ko nañu ko traduiral ci arab bu ñu jox texte français nañu ko traduiral ci arab Senghor exécuté wu def loola bañ ca jotee ñu toog càmbar ko génn ci lu mat quatre-vingt-cinq articles yu waroo ak texte charia ñu bind ko ab lettre boo xam ne man maa ngi ceeg une copie en arabe lettre ba dañ ne ko ñun day li ñu jaaxal ci sa projet bi mooy da nga cee atte mbir yoo xam ne charia atte na ko ba pare ndax mbiru sëy mbiru ndono ak yu demee ni ñoom charia atte na ko ba pare ñun nag nangu nañ ne ci réew mu lislaam attewul lañu ñu nekk waaye du tere ñu nangu ne réew mi dañ koo bokk ak ñeneen ñu bokkut ci lislaam loolu lépp nangu nañ ko xam nañ ko kon lenn mën a am booy defar ab ñun ñii di jullit nga jëlal ñu la charia atte ba pare dugalal ñu foofa loola ñu di ko atte woo ñu jullit yi keneen la téeréem di atte woo nga dugalal ko keneen ku buggut a atte woo ci yooyu yëpp nga tëralal ko lu bees lu muy atte woo loolu lañ ko wax ca lettre ba ñu nekk ca bëre boobu ba diggante bi xam nga 68 sëñ Fallou ci la wàcc ab liggéey euh, tam moo doonoon la grand initiateur mbir ma daal dafay jaare 72 Senghor xëy rek daal di génne euh, yóbbu projet bi assemblée ñu wote ko mu mu nekk ci seen kanam euh, gannaaw gi ay SIRCOF ak yooyu ay comité islamique bu metre mbay Niang yàlla na ko yàlla yërëm jiite woon pour la réforme du code de la famille juddu Euh, sëñ Abdoul Aziz si Al Amin nekkoon président ba ba man fekke naa je crois en 2018 bu ma jotuwul ou 17 booba en tout cas mi ngi dund keroog ba ñuy liggéeyee ba projet bi jeex le nouveau projet euh, di code de la famille euh, sénégalaise ñu defar ko ba mu jeex ci français ak ci arabe jox ko ay juriste ñu xoolaat bindin weeg façon beeg ni mu tëddee ba keroog commission bi doon jébbali Abdoul Aziz Sy Al Amine les deux projets ca laa bokkoon man mii jébbal nañ ko ko Tiwaawan moom it yàlla def euh, ban ko jébbalee loola defe naa matul at mu wàcc ab liggéey donc waaye xam naa ne projet ba mu nga tëdd di xaar. kon mën nañoo ne la ñoom Serigne Fallou ak euh, ña mu nekkaloon jamono yooyu bëggoon ba tey sotteegul. sotteegul waaye ba tey ñi leen fi wutu bàyyi guñu ko mu tëdd de. xëy na ay mulaabasaat rek la waaye bàyyiwuñu projet ba mu tëdd parce que ba tey ne naa la traduire nañ ko defar nañ ko pare na te yéene ji moo doon doonoon yóbbu ko assemblée demander solennellement député yi jaarale ko ci xalif généraux yi ñu wote ko bu boobaa nag ñu nattu waa réew mi ba xam ndax ay jullit lañu wala leneen lañu. loolu dafay euh, wone solo si jullit yi daje am ndax xëy na bu ñu defoon aw say ba léegi mbir mi sotti na bu yàgg. mais absolument bu ñu dajewul du ñu mën a sottal dara loolu la mbir mi wane ne saa yu nu ma saa am problème bëgg am solution dañuy daje gis nga keroog ba nga xamee ne sëñ Xaadim Guèye dafa am problème fële ca Njaañ ak élèves yi nu jéngoon euh, ba nu ko jooytujee sëriñ bi fekk jàpp nañ ko ba pare. sëñ bi daf ne damaa amoon yaakaar sax dajale jullit yépp fii ci Touba ñu seet nag ci mbiru constitution bi li nga xam ne attan nañ ko ci suñ diine dañ koy yenu wala li nga xam ne duñ ko war a yenu ñu xool ak ñoom luñ koy lijjantee xam nga loolu wax ju leer la loolu wax na ne yàgg naa ci xalaat te maa ngi ciy xalaat te gëm naa ne bàyyiwul xalaat boobu te bés bu ko defee Eh, dana sottal xëy na projet yii yëpp nga xam ne éggaguloon yàlla mën naa def mu sottee ci loxoom incha allah. démb ak tey ngeen di teewlu ci réew mi FM ñuy dalal monsieur le ministre Bamba Ndiaye ñu dénkoon ko fi wàllu affaire religieuse ci jamonoy président Abdoulaye Wade alors monsieur le ministre ñu delluwaat démb euh, surtout ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak xëy na lu ko jiitu euh, mbir yi bu masaana am lan la ñu daan dénk jullit yi ñuy jël ko def ko xëy na euh, lu ñuy ngànnaayoo ngir mën a janook secte yi ndax lu ñu mën a wax itam seen influence mi ngi fii boo gisee nit ñi leen di topp mooy am na xëy na lu ñu def ci seen bopp wala am na leneen lu ñu leen wan lu tax ñu topp ci seen ginnaaw waaw jullit bi d'abord li premier ngànnaayam mooy gëm yàlla ba mu gëmee yàlla nag gëm ne parce que loolu mooy mooy principe de base bi ngay duggee ci lislaam dañu ne arkaanul islaam yonent bi moo ko jàngale bu buniyal islaamu ala xamsin islaam dafa sukkandiku ci juróomi kenu kenu mooy jën yu mag yooyu nga xam ne eh, néeg bi ñu daan defar moo ko yenu mu ne ba ca njëkk mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah nga seede ne amul benn buur kenn ku nu war a jaamu kenn ku war a digle ñuy bàyyi eh, ñuy def ñu ngay tere ñuy bàyyi ku dul yàlla borom bi subhanahu wa taala wala boo keneen ku ñëw gannaawam sa digle ak sa tere dafay dugg ci suufu digle ak tere borom bi subhanahu wa taala loolu la yonent bi sallallahu alayhi ci ne la taata li maxluuqin fi maasiyatil xaaliq déeful topp mukk ku ñu bind ci mooy aji bind ci e, ñaareel ba mooy ashadu anna muhammadan rasulullah gëm naa ne yonent bi la yàlla tànn yónni ko ci ñun xam nga boo ko waxee te muy dëgg ci yow seen soxna ku mu mën a doon e, dund dundam ba mu neex ko mu ñëw ne la yàllaa ma yónni wala ki ñu yónnee ma yónni da nga naan ko gëmuma la Cheikh Ahmad Tidiane si almaktoum mu baax ma nee na euh, sëñ euh, ca kër ga booba jamonoy sëñ Sidi Aboubacar la radiallahu an nee na dafa am ku wéradi ku fa nekkoon benn bés rek xëy na mbir yi song ko daaneel ko mu ne muy woote ne yàllaa ko yónni nee na ba ñoom ñu jël ko sànki ko euh, nee góor gi dégg ko rek dal di di ana ana ana diw ñu ko diw de sëñ bi yàlla baax na sax ba fekku la fi ndax lim doon wax moom ëpp na nga dégg ko mu ne ah ba anam ñeme wuñ ko ne dañ ko sànni ji ñuy nës rek mu ne waxuma loolu lépp anamu laa wax ñu ne ko dañ koo génne kër gi parce que lim doon wax nag mu mu ne ana lu wax lu kii noonu de waaw dem leen jëli ko ba pare ginnaaw ñu jëli ko ba pare mu ne waaw ana lu mu wax ñu ne moom de daf ne yàllaa ko yónni mu ne loolu rek la ñoom réel nañ ko moom mu weefal ko ñu ne waaw mu ne loolu kay tontu la yomb na yàlla la yónni nga ne ah, ah, woo leen ma ko ñëw mu ne ko nga ne laan mu ne man yàllaa mu yónni mu ne ko demal ne ko gëmuñu la jeexul hmm. eh, yow boo xasee ba gëm yónent bi hmm. na keneen ñëw wax lu ko neex ah. waaye lenn nga ko war a tontu gëmatuma la gëm naa yónent bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare mënatumaa gëm keneen waxuma woon ne dana am ku mu yónni hmm. kon Euh, woote yooyu bu jullit armé woo ak ngëmam xam nag diineem defe naa ne leneen lu mu gis mu nekk ay caaxaan day teel a xàmmee ne ay caaxaan la du la gëm mais Sénégal nag problème bi moo di dama naan shirk moo fi xaw a bari bokkaale gëm yàlla ba pare gëmaale leneen ci pegg yàlla bu waaye sànnee ay taneem parce que ndaw si dégg naa avant lii daf daan tani ah voyante la woon oui dégg naa pendant un certain long temps voyante la di faj ay nit ak i mbir eh, <laughs> xam nga yooyu nag moom boo ci duggee daanaka yaa ngi ci domaine bu lëndëm alors donc ku sànni ay taneem te yonent bi sallallahu alayhi ne man ata arrafan ku dem seeti na ab maa xam ñoo ñuy defi tànneeg ay béjjén ak ay mbir yu demee noonu nee na nga gëm ko benn riwaaya bi daf ne boo jullee ñeent fukki guddi du ko nangu benn ba ne weddi na la ñu ma yónni man ku dem ci kooku mu wax lay mbir nga gëm ko weddi nga man lañ ma yónni loolu defe naa ne wax ju leer naññ la mooy munoo jaxase mbir yi boo gëmee yàlla ak yonent bi lépp lu wàcc yoon wi da ngay def teg maandu ca loola walla weddi ko sax waaw soxlaatoo preuve amut preuve boo xam ne war naa am ci li te yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko amut lenn luñ la war a tere ci lislaam lu dul yonent bi leeralal na ko lekkay ka nga mën a déglu ka lay wax ne yàlla nee na yonent bi nee na waaye ku la wax leneen lu dul loolu jarul sax nga di ko abal sab nopp ndaw si euh, xem naa ne bëgguloo taxaw ci moom lu bari waaye li yéem ñenn ñi mooy ni muy soppee baat bi peut ci sa xam-xam yow loolu lan moo ko lan moo ko waral waaw xam nga arab daf ne al junoonu funoonun <laughs> la est un art dégg wax ji la folie est un art al boo bëggee nax nit ñi wala nga indi lu bees euh, il faut nga def doxin wu bees yooyu yëpp dama yaakaar ne ay technique d'escroquerie la yoo xam ne nitu jamono yàgg nañ koy indi pour wane ne may itam li ma indi am nay màndarga yu bees yu mu àndal la preuve mooy saa yu ma xam nga léegi dégg nañ lu mu gàtt gàtt ndax moom jullit la woon ci jullit di la bokk la la juddoo ci la màggee euh, dégg nañu yonent bi sallallahu ba mu nekkee xaaru xiraa bu ko wax yu bi daan dikkal daanaka day nekk en transe euh, ndax diisaayu wax yu gi ku bëgg a woote na ne yaay messager du messager nag foo jaar wane ay espèce su transe yu lay jàpp booy joxe sa message man de noonu laa ko interprété. te message bi en français aussi la lay lay nekk. waaw xam nga loolu mooy li gën a doy waar <laughs> yow olof nga. Mhm. ndax euh, maam Fatou Diarra Diop yaakaar naa la tudd. Mhm. judd ci wolof. ah xëy na français da nga koo dégg rek. Mhm. loolu moo tax may gëm teesu liggéey bi ak ONG bi. ak mission africaine bi ñu ko bëgg a def loo. nga waxoon ci euh, olof wala waxoon ci boo demee Côte d'Ivoire doo fa am efficacité. Mm. boo demee Togo naka noonu. boo demee Benin naka noonu. waaye booy làkk français. yooyu yëpp foofa dem. danga mën a wax ak ñoom. te comme ONG bi dafa war a travailler en Afrique. Mm. moo tax xam naa ñu ne ko. li gën a kii rek booy booyow nekk message boo xam ne sa langue officielle mooy français. waaw te tappale it defe naa. def ko ci français moo gën a yomb nga def ko ci beneen làkk hmm. alors euh, ñu des ba tey euh, ci euh, wàll woowu sànq yaa ngi wax ne xëy na jullit bi li koy dimbalee li war a doon armam mooy xam boromam xam sa borom boobu nag njàng la koy may jàngalekat nga njàng mi itam tey soo xelool ci wàllum diine ñu ubbi parenthèse wax ci loolu ak li nga xam ne yëpp mu ngi am ci biir daara yi ni jafe-jafe yenn saa itam ay mbir yu yéeme ñu jël ko joxoñ ci baaraamu tuuma ay jàngalekat yi diine day doon itam sax yenn saa yi loo xam ni kenn mënu koo teggi ndax lu am lay lay doon loola di jafe-jafe yëpp la ci diine tey euh, noo ko jàngat waaw yow wax nga wax bi diine lislaam man dama yàgg di wax ne diine bu simple la mais diine bu complex la ndax diine boo xam ne baat waxuma aaya de waxuma saar baat ba ci njëkk a wàcc un du jullil du wooral du natal aska du ajil makka du sax gëmal yàlla wala gëmal muhammad sallallahu waaye baat ba ci njëkk a wàcc mooy iqra jàngal sàkku la xam iqra bismi rabbika alladi xalaq jàngal jàng moo xam ne nag day wéeru ci principe bu gëm yàlla jàngal géographie waaye na wéeru ci principe bu gëm yàlla jàngal mathématique waaye na wéeru ci principe bu gëm yàlla jàngal anglais waaye na wéeru ci principe bu gëm yàlla jàngal français waaye na wéeru ci principe bu gëm yàlla. finalité bi na doon finalité bi na nekk gëm yàlla parce que yàlla dafa njëkk a wax ne bu maa xalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni man mi bind xam nga man ak yow ak sunu moroom kenn ci ñun xamut lu ko fi indi laaju ñu ko ban ko fi indi ndax ñu yóbbu la wala déet demandé wuñ sa accord demandé wuñ accordu keneen yàlla la soob mu amal ñu indi ñu fi mm-hmm. euh, wa lu ñu jiitu sax daf ne dafa ci suratul baqara wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaacilun fi l ardi xalifatan qaalu atajacalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa naxnu nusabixu bi xamdik wa nim jeexee yàlla nettali laata sax muy bind doomu aadama mm-hmm. ba muy bind ba mu bindee suuf ak asamaan di wax ne dama am yéene indi ci kaw suuf ku ma fay toogal malaaka yi di ko tontu lam koy tontu booba mi ngi waajal amal doom aadama ki njëkk ci espèce humaine kon kooku xam li tax mu indi ñu fi na boo fi nekkee li jaadu mooy d'abord nga laaj sa bopp mais man lan laa fi wut. te dimbale nañu ba wax ñu ko. dimbale nañu ba wax ñu ko. yebal na ndaw waajal ko ne lii ngeen fiy wut. lii moo tax ma indi leen fii wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni binduma jinne ak nit lu dul ngir ñu jaamu dem na sax ba ca kanam mu ne maa uridu minhum min rizq wa maa uridu an yut'imuni soxlawu ma ñu wutal ma benn alal soxlawu ñu di ma jox nga may lekk soxlaa lu leen dara nañ ma jàmmu rek jàmmu nag dañ koo tënk ci ñaar ifaal wala tafaal defal bàyyil seen nga sunu maam aadam alayhi salaatu wassalaam ak soxnaam xawaa alayhima salaatu wassalaam ñoo njëkk a ñëw ci kaw suuf seen ak jaamu nekkutoon julli nekkutoon woor nekkutoon aji makk ifaal wala tafaal la woon ifaal de de wakkulaa minha haythu shituma yéen a ngi nii ci benn verger boo xam ne ay fruits dong fi fees ak lu neex lekk leen ci lu leen neex waaye wala taqraba hazi shajarata benn nag ci fruit yaa ngi nii boobu moom bu leen ko laal benn boobu rek lan leen ban mais déjà yàlla symbolisé na principe bu defal ak bul def ce qui veut bu la yàlla bàyyiloo dara bul sax jéem a seet lu tax mu bàyyiloo ma ko parce que ci loolu la iblis réere euh, astaghfirullah sunu maam aadama alayhi salaam ba mu demee bay jéem a raisonner iblis daf ko ne mais yow xam nga lu tax yàlla aaye leen garab bii ci des yëpp mu permettre leen ko eh, sunu maam aadama ne ko ñun de jéemuñu ko xam sax sunu borom daal xam nañ ne moo ñu bind nee nañu bu leen ko laal duñ ko laal mu ne mais li ngeen def du xel dama lay wax tey secret bi garab gii mooy sajaratul xul boo ko lekkee mooy l'arbre de l'éternité boo ko lekkee lekkee du too dee te da nga am mulkun laayab la nguur gu dul ràpp ba mukk sunu borom nag dama lay wax lenn daf nu piégé lenn rek la nu ëppee doole moom du dee te ñun dañuy dee comme moom du dee moo fiy nekk génération bu nekk mu créé la xam loo xamutoon ëllëg muy fekke loo fekkewut naturellement moo lay man di la jiital ëpp la doole. deuxièmement dafa am nguur ndax moom mooy almalik le vrai roi mhm. mais moom nguuram du jeex ñun nag ku fi nekk buurit da ngay nekk un jour sa nguur jeex mais boo lekkoon ci garab gii nga xam ne duutoo dee comme moom mhm. da ngay yore nguur goo xam ne du jeex comme moom duutu la mënal dara loolu tax mu aaye leen ko voilà le alors ñuy hésité ba un jour ils ont goûté <laughs> ñu ñu ñam ca garab ga mhm. yàlla daal di leen di weer ca la leen euh, nga jégal ba ci baat bi xaw a toraxale mhm. euh, bàkkaar noonu lay def bàkkaar dañu ne saa yoo ko defee yàlla dana la mbugal ci toraxal mhm. door laa tuubal ñu mujj tuubaat nag ci seen borom ca la leen wàccee ci suuf si ba mu leen di wàccee nag moom a leen naxoon lekk loo leen ko te ñu découvrir après que c'est un menteur moom la leen yàlla takke comme dans ci parachute wàcce leen ci kaw suuf ihbita minha jamian ànd leen wàcc ci kaw suuf baadukum li baadin adu mais désormais sachez que yéen ñaar ñii ku ci nekk sa noonu moroom nga xam nga yàlla par pédagogie la ñu jaarale dafa découvrir loo aadama que iblis naxaatekat la attention boo demee suuf sa la nga jëm dana fa ñëw naxaat la ci yeneen mbir yum la gëmloo boo ko toppee déglu ko nim la naxee woon une première fois dana la ko naxee une deuxième fois moo tax kaw suuf bi damay wax ne c'est une arène de lutte bëre la bëgg bëre bañ bëre <laughs> loolu tax ñu wàcc. <laughs> on n'a <laughs> pas le choix. Uh-huh. kon ba tey mën nañoo jàpp ni yi di xew yëpp ay ay. pexe seytaane ci bëre bi la bokk mais arène ba moo fa nekkee lu indi coowal burki démb làmb ji. Alioune Seye numéro de ma doon waaje bëreeg waaje moom lañ fekk sa sotti ko ak garab. Mm. mu dem copp topp waaje dóor ko bu jigi xeex am. Mm-hmm. dama ne xam nga ñu bëri keroog dóor nañ leen fay chaise. Mm-hmm. ak i kurpeñ te wa am arène boo ca nekkee loolu dana la cay fekk. Mm. bëgg bëre bañ bëre boo wàccee ci arène booy boo li gën a wóor rek mm-hmm. nga préparé te gemb bu boo bañee ñu bett la mm-hmm. genn góor gu baax da daan wax ne euh, làmb boo déggee galan ba kenn bettatu la xam nga li daloon euh, guy gi ca bëreem mag ama ñu dem ba arbitre bi sifflé wala ñu kii mm-hmm. ngay jàdd di wër mu jett la dóor ab korbañ nga daanu dañoo mujj accordel ama victoire ba alors nga naan dafa ma bett ak dafa def léeg dama doon jat ak déedéet danañ làmb boo déggee galan ba préparel kenn bettatu la mën nañu caa dégg ne lay du am lay amatul yàlla wax na ko yàlla noonu la ko waxee daf ne ëllëg du ngeen am lay ci man parce que li ngeen waroon lay lépp leeral naa leen ko ba pare dafa mel ni ñun la faral boo ko xoolee bu baax ah déet melu ko euh, xam nga xis sa bi dama ko dagg ndax dafa gudd waaye na mu demee ba mu ne dafa yëgal malaaka yi ne wa id qaala rabbuka lil malaikati inni jaayilun fi ard xalifa ba mu la yëgalee dafay dafay indi malaaka yi dañu ko bëggoon a nekk waaye malaaka sañ du du mooy borom malaaka dañ ko formate mm-hmm. amul liberté bi ñu am ñun malaaka yi dañoo bëggoon nekk ki yàllay terale loolu mm-hmm. ñu ne ko ndax da nga fay yóbbu ku fay yàq di fa tuur deret te ñun de moondee ci jaamu la la ñu nekk suba ngoon xam nga loolu mooy. ci kàddu yu rafet. bu ma sañoon nga bu ma sañoon man nga yóbbu. yàlla ne jeexaleeg ñoom. Euh, wa allama aadama al asmaa kullaha mu jël aadama mi fi a indi. dugg moom ci ruq. dugg moom ci jàngal ko lu ñu la mm-hmm. ne ko demal wax leen ko laaj le laaj malaaka yi ay tur xamuñ ca dara mu ne aadama wax leen ko aadama wax leen ko mu ne leen hey noppi leen inni aalamu ma la taalamun mm-hmm. xam naa lu ngeen xamul. Mm-hmm. balaa kay delluwaat ci seen place. mu daal di mujjëg ñoom ci ne daal di génne le le le missionnaire muy aadam mm-hmm. ne mu ne tëll mu ne sujootal leen ko mm-hmm. usjudoo li aadam iblis nga woon ca biir place ba de parce que iblis foofu sax la mu fastiroo ne wax ne ci malaaka yi la bokkoon mm-hmm. alors ñépp sujoot illa iblisa aba wastakbar ñépp sujoot donc mooy ñun la faral bi leer na parce que ñëpp sujjootal y compris malaaka mhm. mi nga xam ne du mooy boroomam mhm. dafa sujjootal aadama mhm. ndax nag sujjoot ba ñu ne li tax du jàmm ja du jaamub aadama ndigalu yàlla lan doon def yàllaa ne us juddoo aadama xam nga suuf si da nga ciy sëgg ka siggi waaye jaamuwuloo suuf si parce que sëgg bi ngay def yàllaa la ko digal moo tax suuf si ngay sëgg Umar ibnul Xattaab bu daan wër Kaaba ga da daan jooy naan ko doju kese nga bu koy wër di ko fóon xam nga loolu dafay mel ni doj wi ngay jaam xam nga ne doju kese nga maa la gën a xam loolu di tax ma di la wër di fóon di jooy mooy yàllaa ma ko def loo rek waaye bu ma ko def loo wutoon du ma ko def kon euh, takrim boobu mu defal aadama teraanga ji mu ko jox honneur bi mu ko def iblis ba mu bañee daf koo toroxal wàcce ko iblis sax dikkaat ne ko man dey toroxal nga ma ci ku ko jarul hmm. yaa mu ne ko waaw parce que kii ma nga ma jëndeel ba tax nga toroxal ma ci kanam ñépp danaa la wan ne jaru ko ndax yaa ngi koy yebal ci kaw suuf danaa ko fa fekk réeral ko fexe ba li nga ko digal ma dox digganteem ak loola du ci def dara danaa ko jaar nag côté bu ne danaa ko jaar ndijoor càmmooñ ci kaw ci suuf danaa ko jaare fu ne ba détourner ko sur la bonne voie loolu mooy bëre bi loolu mooy àddina boo fi nekkee tout le temps Iblis a ngi préparé ñu mel ni Seyda Zaman Iblis a ngi préparé ñeneen ñu dul moom ay club maçonnique Iblis a ngi préparé yeneen i gerkat yoo xam ne ñu ngi yore seen i koom wala seen i pouvoir di la ko jéem a détourner ci yoonu yàlla wi waaye bu dee ko xàmmee yoonu yàlla nag yooyu yëpp du ko mën a euh, yóbbu ba mu waxee yàlla ne ko danaa détourner sa jaam yi yàlla ne ko illa ibadiya minhumul muxlasin lu dul sama jaam yi nga xam ne de seen sellal ñooñu doo man ci ñoom dara ñooñu nag yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañu bokk ca ñooña tey ñu ñëwaat ci jafe-jafe yi am ci njàng mi njàngum diine mi surtout ni ma ko waxee sànq loo ci gis comme solution xëy na ngir euh, gën a taxawu diine ndax foofa bu sookee rek euh, dana am jeexital yoo xam ne yu doy waar lay doon waa njàng day baasu organise société bi wax naa ne léegi ne yàlla alqur euh, islam baat bi mu ci njëkk wàcce ci alquran mooy iqra jàngal sàkkul a xam donc njàng ci la ñuy jaare pour former une société humaine société bu gëm yàlla bu jaar ci yoonu yàlla moo tax njàng am importance ñi gëmul yàlla sax naka jàkk jàppoon nañu ne njàng moo war a nekk euh, bunt bi nga xam ne ci li nit ki war a jaar pour ñu préparer ko ëllëg mu mën a insérer wu ci biir société bi mën cee jouer donc njàng ñëpp d'accord ci ne war na am mais njàng nag des ko war a encadrer d'abord kii jàngal. kii jàngale. kii jàngale dañ ko war a préparer. waajal ko jàngal ko nu muy jàngalee ndax jàngale mooy transmission de connaissance. yow am na xam-xam bu nekk ci yow. waaye na ngay joxe xam-xam ba beneen xam-xam la boo xam ne dafa laaj nga xam ko. moo tax pédagogie gis nga léegi FASTEF ab faculté la. boo xam ne xeetu jàngale rek lay jàngale. Mhm, na ñuy xeet da ngay jàngi mathématique fële ba pare. Mhm. dikk ne man de damaa bëgg jàngale ji. Mhm. ñoo la demal Pastef ñoo la ah, da ngay dal daal mu bees nga ne lan lay jàngat man jàng naa mathématique ba am ci li jaas. ñoo da ngay dem Pastef ñu jàngal la sa xam-xamu mathématique boobu noo koy jàngale keneen nga jàng littérature ñoo la demal Pastef boo bëggee jàngale ji nga jaar fa man mii damaa jàng euh, faculté de lettres ba pare. door a dem Fastef jàng fa booba école normale supérieure rek la tuddoon jàng fa ni ñuy jàngale door a mën a dem jàngale ji loolu nag mooy li manqué ci daara yi ay li yéen loolu il faut ñu nangu ko tëral nañ fi nag ay programme ay PAMOD ay yeneen programme pareer avant yoo xam ne jàpp naa ne buñ jaaroon yoon tey réglé nañ problème boobu ndax c'est pas aussi compliqué qu'on le pense euh, je crois que ya a deux problèmes Euh, bi ci gën a rëy mooy problème d'approche souvent programme yi fi tëral yi dugal ci ay milliards loolu heureusement sénégalais yi xamuñu ko mais mbiru daara yi fi mu nekk nii ay milliards dugg na ci te jëriñul daara sottiwul parce que jaarul yoon wa souvent dañuy fausser approche bi ndax boo jëlee lu mel ni pareer ki ko jiite di ko génn ci école française du du tuutal école française mais diggante daara ak école française ku xool seen histoire ca depuis ca projet Faidherbe ya 1857 pour xeex daara ba tey dafa nekk diggante bu heurté boo xam ne dafa ñooñ daara dañuy xoole ñooñ école française comme ndobin ñoom dañu jàpp ne ndobin dafa rey seen maam mm-hmm. lépp lu juulati buñ la séenee dañuy daw moo tax approche bi dafa am solo ma foog ne Sénégal am nay cadre ñu génn ci daara yoo xam ne lépp loo fi bëgg a def mu jëm ci daara mën ngaa jaarale ko ci ñoom ñoom foofa la ñu génnee nit ñi ragalul leen ñeme nañ leen xam nañ aussi nuñ leen di aborder loolu nag projet yi fi jaar yépp ba ci PAMOD bi nga xam ne banque mondiale banque islamique de développement moo ko financé woon ñu def ci lu mat dix milliards daanaka noonu la demee. Eh, defe naa sëriñ ban ko joxoon wala yooyu dama bañ a wax ngóor sa Canada la jóge <laughs> jàngi ba ñëw mm. alors ñooñu mënuñu lijjanti daara c'est la vérité mm. te nitu daara yi organiser nañ y la fédération des associations des euh, des écoles coraniques boo xam ne suñu xarit Moustapha Lo moo ko jiite mm. am na beneen boo xam ne sëñ euh, Mamadou Talla moo ko jiite ainsi de suite am na rabita bu nekk Touba yooyu yëpp ay kuréel la yoo xam ne Euh, nit ñi organiser wu nañ mais dafa laaj nag l'état jege si leen jouer un rôle de facilitateur mais mu def ko nag avec une bonne approche boo xam ne dinañu ko ñeme ca jëmm ja muy feeñi dinañu ko ñeme ca langage ba mu leen di aborde mais état bi boo defaree say mbir ne damay moderniser daara ñoom tour moderniser rek da leen di tiital. day mel ni da nga koy tubaabal. day mel ni da nga koy tubaaj macha allah. day mel ni da ngaa bëgg a transformer daara def ko ni seen école yi te ñoom loolu la ñuy bañ. moo taxoon demun ca école yi ña nga gis te daara yi seen baay yi gis nañ école yi. xam nañ ni c'est gratuit mais neexu leen. la fay juddoo neexu leen ñu tànn ne nañ dem daara donc ñooñu boo bëggee indi yokkute ci biir daara lu mën a am la. danga koy jaarale feneen fu dul fi nu koy jaarale boobu ba léegi. ndax jafe-jafe yi ñu am tey ci njàngum diine amoon na xëy na démb. waaw njàng moom. musula yomb musula yomb euh, naka njëkk day ànd ak jafe-jafe euh, mais euh, jafe-jafe yi gënoon na sax tar lii tey dama jàpp sax ne tey la gën a yomb tey la gën a yomb bu njëkk amoon na jafe-jafe mais jafe-jafe yi dañu ko daan gérer parce que booba ñi koy def presque xam nañ li ñuy def hmm. te am nañ méthodologie bu dëppoo ak li nga xam ne moom la ñuy def tey nag je crois que li gën a yokk jafe-jafe yi mooy njaaba njale ji euh, état dafa nekk fii di doxal loo xam ne bokkul lay xew daara mel ni dafa wanoon ginnaaw daara gëstu ko ba te pourtant lu fa xew état ne dama ko war a régler alors loolu mooy dysfonctionnement bu mag bi nga xam ne moo indi jafe-jafe yi damay wax ne souvent dafay am ñuy laye laïcité mm. may ne laïcité du lay parce que depuis le temps colonial l'administration coloniale moo créé woon premier commissariat au pèlerinage mais le pèlerinage à la Mecque c'est le cinquième pilier de l'islam ku nangoo gérer cinquième pilier de l'islam le délégué général actuelle sama xarit maa ngi moom a jàngandoo ba niveau maîtrise muy Abdoul Aziz Kébé euh, décret waaw yow décret présidentiel moo lay fal jox la salaire staff bi nga yore ñoo leen jox salaire wutal la foo nekk di gérer kon complètement aj bi euh, bi muy le cinquième pilier de l'islam mhm. waa njàngale ma nga ne mënuñ koo def ndax laïcité mhm. ma jàpp ne loolu ay lay la mais vraiment réew mu mel ni Sénégal état warul a mën a génne loxoom ci njàngalem daara beneen injustice bu ñuy remarqué mooy quand di bu ñu lay wax ne pour cent budget bi ñu jagleel njàng mi ci njàngam école française dañ koy dugal bàyyi doomu daara ji nga xam ne sénégalais ni moom kii amu ci dërëm kële di jël 40 pour cent yëpp loolu discrimination la boo xam ne droit de l'homme yi ñoo waroon a njëkk a jóg xeex ko parce que yoon nangu ko maandute nanguwu ko xel bu rafet itam nanguwu ko te loolu mooy malheureusement li am. leneen la ca nekk ni jafe-jafe aussi mooy ñi ca rax xëy na te amuñu xam-xam bi euh, dara itam euh, luy leen di may ñuy mën a jàngale diine newul ca ñoom. waaw xam nga lu kenn géréwul day nekk anarchie. anarchie bu amee ku jóg dugg ci ñoom jàngale kër yooyu mujj nañ ànd ak état defar benn statut bu jëm ci daara yi boo xam ne dafa am xëy na ay réglages yu tuuti yu ñu ci war a def. mais bu ñu ko defee yaakaar naa dina baax pour mbir mi léegi nii kuy jàngale daara boo ñëwoon tey ndakaaru wër a wër a wër amoo liggéey nga wut gardien doxul nga wut leneen amul sa benn mbokk wala ku baax ne la man de am naa fi garage euh, mën ngaa jàngale alxuraanam nga ne waaw fekk boo demee mbaamam daara nga nekkoon nga daal di jël garage ba e tàmbali xale bu nekk ngay fayeeku 1000 francs bu doon 1000 francs it par weer boo ci amee Euh, nangami xale bu weer dee ah, nekk ab xaalis ah, ah. Euh, boole cee nga di leen yelwaan loo ñuy indi ay ñaari dërëm a kii mm-hmm. lu ëpp loolu ngay dajale bu bu yàggee te yow jàppoo woon ci dara mm-hmm. day am loo jàpp mm-hmm. euh, mais loolu kan moo am sañ-sañu ne ko doo ko fi defee xam nga ñiy jàngale ci daara yi loolu neexu leen mais munuñu ko dindi loolu état moo waroon a mbir mi tëral ay critères ci statut boobu yër naa ko tëral nañ ay critères yoo xam ne ku bëgg a jàngaleeti ci daara yi mm. da ngay am lijaasa wala ñu yóbbu la ca ña xam mbiru daara ñu nattu la maanaam defal la examen mm-hmm. ba bindal la lijaasa ne yow war ngaa mën a jàngale mm-hmm. waaye du koy sol ab kéem bu weex rek ne oustaz laa peñewu mm-hmm. jëmale gannaaw <laughs> ñu di la wooy oustaz boo di kee war ngaa mën a ubbi daara di jàngale loolu nag moo indi musiba yu bari xam nga ne bu fekkee dëgg la kii li xew wakaam ñu ne moo ko def loolu bu amee laa wax parce que ba léegi xëy na mi ngi dox ak présomption d'innocence mm. mais bu fekkee ne loolu dëgg la loolu naxaate la parce que ku yaakaaroon ne da ngay jàngale alxuraan mm-hmm. jubal xale yi def ci ñoom alxuraan mm. ba waaye jur yi wóolu la jox la seeni doom mm-hmm. nga di leen def na sa du noona loolu waroon na ak li nga woote woon mm-hmm. yu mel noonu yëpp nag euh, organisation structuration bu bàyyi ko ci état moo ko war a mën a dindi. te loolu yaakaar na ne jot nañu def ko. jërëjëf monsieur le ministre amoon nañu mbégte dalal la ci waxtaan wi ñu ngi lay sant di la gërëm ci disponibilité bi ak surtout pertinence bi ci euh, kàddu yi. jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla itam yéen itam wax dëgg yàlla di nemmeeku ne ni ngeen di defee seen liggéey rafet na parce que yàgg nañ leen a suivre kon loolu ngeen nekk ñu ngi leen ci encouragé. parce que liggéey bi ngeen di def itam bu am solo la bu problème mu daara ak yeneen xeetu problème feeñee tey ba nit ñi di ci wut euh, solution euh, gannaaw yàlla ak seen liggéey la donc liggéey boobu liggéey bu am solo la léegi laay waxtaan ak ci mbokk ci mbiru journalisme ñu di ma laaj lan moo ko lëkkale ak lislaam ma ne leen euh, Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mu baax ma daan na wax ne prophète ñoo njëkk a nekk les message ay journaliste parce que ñoo njëkk a tas yàlla dénk leen tasum xabaar ndax yàlla xabaaru alquran jibril alayhi salaatu wasalaam la ko jox jox ko muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko demal tas ko ci nit ñi donc xabaar yooyu euh, naba una azim sax lañ ko tudde woon xabaar bu rëy donc euh, yonent yi mission ban daan def ku jóg ne moom ngay def jël nga yoon wu rëy mission bu noble la mission bu rëy la waaye rek dafay laaj ñi koy def itam xam noble su seen mission arab ba daf ne woon walaw anna ahlal mi saanuhu saanahum ñooñ xam-xam day bu ñu wegoon xam-xam teg ko place am xam-xam dana leen weg teg leen seen place waaye maala asaf bu ñu defee naka sa du noona bu boobaa dañuy wàcc seen ànd te ku wàcc sa ànd nee na boo demati fekk borom toog ca. borom toog ca <laughs> le ministre Bamba Ndiaye nekkoon ministre des affaires religieuses ci jamonoy président Abdoulaye Wade moom la ñu doon dalal tey ci démb ak tey waxtaanee li ñu mën a tuddee secte religieuse ak li feeñ tey muy soxna suñuy tuddee boppam Seyda Zaman ak itam yeneen yu ko jiitu ba ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laal itam ci njàngale mi ndax lépp daanaka benn la ci diine la jëm te itam Sénégal ku ko wax wax diine ndax euh, ku fi dul jullit rek euh, chrétien nga waaye xëy na loola yëpp itam ma nga ànd jëm ci yàlla ñu ngi lay gërëm bu baax monsieur le ministre di gërëm itam ñi doon déglu gërëm jaawo jàllo mi faxe woon ci machine bi Fatou Thiam nga moo ne woon ci kaddu gi amoon mbégte ànd ak yéen tey di leen dig daje dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ñu yendoog jàmm